sayyidina nabi kaw weer wii lii wax ci sa kaw la dal yow yaay ministre de l'intérieur loo ci def rek ñëpp jàppale la nga wax amma lii Papa Makhtar wax wax nag ci sëy sëñ yi yées na loolu. nee sëñ yi na loolu. li ñu xewal. nee li ñu xewal. jabaru taara. jabaru taara. ñeenti jabar. ñeenti jabar. nga teg ca ñeent. nga teg ca taara lañu. taara lañu. taara amul. taara amul. taara. jaam jaam ci diine bi muy am bi muy am diine wax na ñan la diine wax na ñan la alladina sabilillah booba la jaam am booba la jaam am waaye léegi jaam amatul ñeenti taara ñeenti jigéen takku mutaa am na baaxut ku tukki ku ne foo fanaan takk fa jabar boo xëyee suba jéggal ko nee moom bii ànd na ak nit ci benn jamono ci benn jamono ñu dem Maroc ba ñu demee daf ko laaj yow ban hôtel nga dal ma wax ko ko mun ma yóbbuwaaleel ma sama bagage gardeel ma ma yóbbu bagage ba ba ca ëllëg sa gisu ko ma ne ko man nag xawoon naa jaaxle mënuma dem mënuma dikk bagage baa nga ma garde mënuma waaw xam nga boo wàccee ci dëkk tumuranke dem rek ñu baaxe la may la soxna yow sax wutal naa la fa benn ma ne ko def nga añ déglu leen tuuti déglu leen déglu leen li muy wax ni nee na li muy wax ni reelu la de waaye lu bon lu reelu la wallahi wallahi ni ma man sax wutal naa la benn ma ne ko waaw sëriñ bi man ñemewu ma sax nooyi. ñemewu ma sax ci Sénégal kee ko ñemewu ma ko. kon waaye daal li siiw. mooy takku suuf. mooy suuf. takku suuf. takku la. moo di. moo di. am na groupe déggu leen tuuti am na groupe boo xam ni. seen jagle. seen jagle. moo di moo di. jigéen ju bëgg sëy. jigéen ju bëgg sëy. ak góor ak góor. te bëggul mu fës. ñu maye ko. buñ la ko mayee nag. ko mayee nag. am na nooy mel. am na nooy mel. altine ngay moome. altine ngay moome. ak alxames. ak guddi xaaju guddi. jënd jàllaabi bu weex. jënd jàllaabi bu weex. kurus gu weex. kurus mbaxana mu weex. boyatu mentilato. moom ngay diwoo. moom ngay boo dee moome ji. boo dee moome ji. reer yi. ci xaaju guddi. ci xaaju guddi. boo ñëwee. ni suñu daayire. ni dafa am dog yi ñuy dafa am dog yi ñuy def. <laughs> baaxul dégg leen tuuti ne ñu dem ca nag ba nga xam ni léegi góor gu góor gu dee am dara góor gu dee am fukki jigéen ak juróom fukki jigéen ak juróom danañu ñëw muuru danañu ñëw muuru ni sama jëkkër a woon sama jëkkër a woon ñu sedd leen ca nono la ñu sedd ñu dem seen yoon ndee lii papa Maxtaar Kebe wax rek waaw yow sa jëkkër dee nga muuru nit ñëw ni xaju fi mureekul kuy muuru danga amul ku la jël mureekul nga daldi mureeku allahu akbar ak li ñuy wax ak li ñuy wax baara yëgoo yii yëpp ay bon bon la yoo xam ni mi ci réew mi ñu di ko doodal waaye baaxul ci nun mooy sabab musiba ak balaa wàcc ci suñu kaw ko jooytu nag ne danañ ko jooytu nag ndax dañoo jàngoon ni man raa minkum munkaran na nga ca wax nag waaye nag. waaye nag. soo gisee foo ko jooyee. soo gisee nag foo ko joxe mel na que fii. ku fa mel na que fii. ñu koy joxe di wax ni. lu fi taxaw. lu fi taxaw. ku fi taxaw ku fi taxaw. di góor jigéen. di góor jigéen. manifester ko. manifester ko. wala mu nëbb ko. wala mu nëbb ko. ba feeñ. ci koo. dal leen ci koo. libérer population. libérer population bi. dindi mbon mbon yooyu. ñu dindi ñu jublu ci mbon mbon yooyu bàyyi ko mais ñu ngi leen koy ñaan ñu leen koy ñaan gannaaw loolu nag ñu ñaan yàlla yàlla na yàlla dooli jàmm yàlla na yàlla dooli sutura yàlla yàlla dooli barke yàlla nañu yàlla aar réew mi yàlla na yàlla wëlbati xol yi ba ñépp bëggante kawwal wi kawwal wi sidna nabi kawwal wi